observateur xëy njaaxlem étudiant doomi Sénégal ya nekk ca dëkk bi di Wuhan ca Chine di dëkk bi jàngoro coronavirus gi feeñ ci yéenekaay bu groupe Futurs Médias étudiant yaa nga ca naan nañ leen dimbali si rek wala ñu baleen ñu fa fa faatu Vox Populi xamal ñu ne yooyu sénégalais fukk ak ñaar ci lañu toll ca ña nga ca safaray coronavirus ga ca Wuhan ña ngay sàkku ci président Macky Sall mu delloo si leen Sénégal yéenekaay bi ne waa France ñoom waa États-Unis Japon ak ci mel ni waa Maroc ña ngay rawale seeni doom yéenekaay bi nag jàllale woote wàllu kenn ci doomu Sénégal yi foofe te Chine ci téléphone ak waa Dakar Actu ñu ne mu nga ca naan fa ñu nekk lépp tëj kenn talul kenn l'hôpital yaa nga fees dell meeru diwaan nga sax di bu Wuhan ñu ne nangu na ne yëf yi ci jéggi dayoo la jëm kon su état Sénégal deful lu gaaw rawale leen ñu sànku bilan bi ñeel nag jàngoro ji jamono yi foofu ci Chine juróom-ñett fukk ak ñaari doomu aadama yu faatu la ak ñaari ju nekk juróom-ñaat téeméer yu mu dugg jàngoro joojee fii ci Sénégal jéey ci wàllu cong geeg raye gi wéy observateur xëy fësale nataalu soxna si di Njóoba Sekk ñu faat ko ca Pikine yéene kaay bi ne juróom benn fukk ak ñeenti jam-jami paaka fekk nañ ko ca yaram wa yaay jë ci libération ne ab wootab téléphone daal la daal di wuyu rek génn ak léegi nag la gëj a dellu si yéene kaay bi ne ginnaaw bi nu ko faatee nag néewam dana ko sànni ci pneu yu màgget téléphone am ak portefeuille bu defoon ñaari junni gis nañ ko nag ca wet ga libération ne piste bi ci wàllu agression gurotal bakkan dàq nañu ko laas mel ni ku cay dolli leeral ca naan exam maanaam ki mu daan bëgganteel lanu njort jamono yi ne mooy ki def ñaawteef li enquête ne paatuk njóba sekk tolloon ci ñaar fukki at ak juróom dafa ñëw gën a guddal liste bi rek ci jigéen yu nu fi boom Sénégal fan yi ci ginnaaw yéenekaay bi lu jëm ci soxna si di Yoba Baldé ñu faatoon ko nag dagg bopp ba ca Kolda ne enquête bi boroom këram Ousmane balde la teg loxo démb yéenekaay bi xamal ñu ne seenub sëy nag diggante bi dafa naqari woon lool ak paate gi ci réew mi le quotidien xëy ne série sans fin sang ba nepp deret la ko bindee ngir rekk wane ni yëf yi dàkkagul leneen ci yéenekaay yi di Sénégal bi taxawal ak yoonal dib kot ngir yorinu gaz bi ginnaaw yoonal gi ngir pétrole gi présidentielle validé na ko moom président Macky Sall nag Maodo Malick mbay xëy ci yéene kaay bi di las ne dafa mel ni président bégul il n'est pas content fa mu ko wér ci gàttal mooy ay bés bu nu jàngee bataaxal bi tukkee ci ndajem conseil des ministres rek da koy dégg moom njiitu réew mi mu naan jëwri ñi nanu baral jéego yi mel ni daal na mu amee yéene yëf yi gaawee ni ak it na yëf yi doxee du benn ana moo gi mu jiite nag nekk ci banque te gu mitti waral moom Maodo Malick mbay di sàkku ci ministère des finances pouvoir public yi gouvernement bi ci gàttal ñu gën a gunge anamu mi bay lool waaram ci xëyum ndaw ñi la tribune xëyee nataalu président de la république moom ci ndum loxo ba yéenekaay bi jàppee ko ku wéet ku ne cundum ci géew bi seq kook ñëpp nekk président njiitu gouvernement njiitu parti ci biir parti nag moom président di APR waa Grand Place ne xareb toogu baak taxawaay gi di guerre de positionnement gi door na ca Linguère diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Ka diggante beneen bu Mamadou Lamine du Mamadou Mactar Cissé source aané sëñ Diallo song na sëñ Cissé ci wàllu nationalité am waaye sëñ Cissé gaz na ko ca kanam ga moom Mouhamadou Mactar Cissé ci les échos di ci leeral nag ne mësul am beneen yéene sénégalais fii la juddoo jànge fi primaire ba doctorat ca fii ci Sénégal la mës a dëkk Mamadou Lamine Diallo moom gis ne lu ñeel loi bu bees bi ñu fi bëgg a taxawal ñoom ngir yorinu gaz beeg pétrole bi jubluwuñ ci lenn lu dul dugal fi seeni parrain doomi Europe ci business bi soxna Sidi Aïda moom la mu xamal jëwriñ ji di Mamadou Mactar Cissé mooy ku la xam laa ku mën a seede ci sa njóob Mame Mactar Guèye vice-président ONG Jamra su ngeen bëggee gën a xamee ak moom mbokk yi moom xeexkat bi ci wàllu ndefarug jikko yi dem leen ci observateur yéenekaay bi xëy na dëpp dipper nit ki ngir gën ko xamaleek askan wi source a moom xëyee ab Abdoulaye saw directeur général bu COUD ak doxalinu bees moom fa dugal ñu ne guléet nag ab directeur foofe ngir gën a yaatal rawatina pouvoir yi ci yoxoom ak it gën taxal doxin wa fent fa taxawal poste bu bees directeur général adjoint di kilifa guy toftalu ci moom wàllu football bi Aliou Cissé ak ña toftalu ci moom di stafam record ne talaata tey jii ci lël la ñuy dugg ngir waajal éliminatoire CAN 2020 ak mondial 2022 ci yooyee éliminatoire nag stade yéenekaay ne dina miti lool ci Sénégal ndax calendrier bu diis fukki match internationaux ci fukk ak juróom-ñetti weer kese bi saaw nag mooy doon dëgg wu njëkk wi nu war a jéggi wàllu làmb ci sunu i bu Diouf di frère ci Modou Lo diit ancien directeur technique bu Rock Énergie ne Ama Baldé Modou mooy combat bi dàq ci saison bi ba tey sunu làmb mbër mi di franc moom di ci défendre papa saw ci coow li dox diggam ak écurie Fass mu ne papa deful dara lépp ndëgg sërëx rek la ngir yàq ko moom papa saw du leneen.